mbokk internet di jaar naa leen mbaa yéen a ngi am jàmm tey nag mu ñëwaat ak yéen ci seen troisième partie histoire ndaw si nga xamante ne digganteem ak première jëkkëram bi metti na lool sax ba jéggi ci dayo man nag li may laaj ndeysaan jigéen ñi nga xamante ne dañoo bëgg sëy lool sax ñoom daal dafa mel ni rek amuñu sansu jëkkër xam nga ñu ngi tollu woon bi nga xamee ne ja jëkkër ji doon nañ ko wax am na beneen jabar mais gëmu ko mu naan jëkkër ji su amoon beneen jabar dina ko ko wax ba waa ji daal koy digal ne ko saraxeel ay mbuusu ndox boo ko saraxee di nga ci am lu leer ñu ne bi yàlla defee mu saraxee mbuusu ndox yi ci la toogee benn jour rek jëkkër ji fàtte téléphone am mu yëkkati téléphone bi gis benn xale bu jigéen di envoyé jëkkër ji ay message d'amour naan ko bébé ñibbisil namm naa la ne ci noonu nag mu comporté woo comme si moom mooy jëkkër ji di waxtaan ak ndaw si ba piégé ko ba ndaw si ne fa envoyé ay yaramu neenam euh, ki ci portable jëkkëram ci la amee lu ko leer nag jëkkër ji am na beneen jabar nee na ci noonu nag mu xuloo ceeg jëkkër ji xuloo bu méttee méttee métti mais cette fois-ci nag dane ko danga may may baat ndax wax dëgg yàlla saa yu ma la ñaanee baat dangay bañ ak di ma dawloo ndax nee na ma soxna Faatu xam naa sama jëkkër maa moom sëy nañu 30 ans presque ndax bi may takk j'avais que 16 ans te def nañu trente ans de mariage te nekk na it genre góor boo xam ne moom pour moom jigéen du ko ñaan baat moom mooy doyal ci jigéen fase la ma comprendre loolu nag ma ni ko comme ñaanoon naa la baat nga dëgër bopp ne ma doo ma may xam naa li nga bëgg dangaa bëgg doyal ci man bàyyil ma sa bopp loolu nag duma ko fi xaar cette fois-ci comme maa ngi toog depuis ma nekk xale ngay def ay huit ans ci àll bi ay cinq ci àll bi ma lay muñal ndekete dangaa am sa beneen jabar sëy bi dafi daal di yem ndeysaan ma ne ko ci cëy yàlla nee na ma soxna faatu ci noonu nag mu xam ne tey moom caaxaanuma nee na mu daal di may may baat ndeysaan ma ne ko cëy yàlla yàlla baax na ndeysaan nee bi ma mayee baat nag ainsi termine l'histoire avec son premier mari ndeysaan nee ma soxna Faatu yàlla mën a nattu jaamam des fois jigéen sëy ay juróom benn sëy fekk billaay du coobareem ndeysaan nee bi ma génnee ci sama première sëy boobu nee na ma soxna faatu ma takkaat sama ndigg ba mu dëgër ndax njaboot naa moom am naag moom ñetti doom nee te bi ñu tàggoowee toppatoowul xale yi ndax naka jekk sax li leen doon toppatoo bariwul nee na may jaay ay yére ne fi may jaay ay yére nag nekk na benn dëkk boo xam ne sorewul ak région bi ma dëkk nee dëkk boobu dafa amoon chaque lundi luuma nee na ba tax na sag lundi rekk day def la tout ba dem ci luuma boobu jaay ndax su jaayee doon na ci gis boppam ndeysaan nee na luuma boobu nag yàlla dogaloon na ca dëkk ba lan moo taxoon mu fay gën di sawar di jaaye par luuma nee na dafa am benn càmmiñam bu fa dëkkoon nee na càmmiñ bi sax ci fa mu koñ moom fa mu dëkk fa la càmmiñ bi dëkkoon mais càmmiñ bi dafa takk ñaareel te nee ñaareel boobu sax moom moo ko présenté càmmiñ bi far ñoom ñaar ñu doxaanante ba sëy nee bi càmmiñ bi takkee ñaareel bi nag càmmiñ bi dafa dem ci dëkk boobu am luuma toog fa ak ñaareel bi ci noonu nag aawoom mer buub ay njabootam fekki ko ca dëkk ba mu toog ak ñaareel bi moom it ne ko ñëw naa ñu toogandoo fii ñun ñëpp nee na càmmiñ bi ñàkk pexe daal di jël apartement dëkkal si ñaari jabaram yi nee na moom it yàlla di dogal mu fay dem di ci dëkk ba tous les lundis di jaay ca luuma ba fay am ndeysaan nee na ma soxna faatu ci noonu rekk sama càmmiñ bi daal di may présenté benn waay nee na bi ma présenté waa ji mu ne ma waa ji de sama xarit la sama genn wàll la mais nag yàlla dogal na saa yoo fi ñëwee lëndi du ngeen fi fekkante mais lëndi tey bi moom yàlla dogal na fekkante ngeen fi nee na ma soxna Faatu waa ji nekk nit ku mën a maye xaalis nee man affaire bi damaa jaaxaloon sax nit ku mën a maye xaalis mooy waa ji ma sama càmmiñ bi présenté nee na ma soxna Faatu ndekete yoo ndekete yoo comme ni nga koy waxee ndeysaan nee na ndekete waa ji daal sama càmmiñ bi sax laay wax ndekete nitu intérêt la parce que waajooju xaalis boobu mu koy may soxna Faatu ba ma demee ba découvrir lu lal xaalis bi ak sama caamiñ lu tax mu gaawantu rek xam na ne man sama xarit la lu mu ma wax dama koy def mu profitoo buugan ma rek may ma waaji ndekete intérêt moo ko lal ndeysaan ma ne ko ci cëy yàlla cëy mais nag yàlla baax na ndeysaan ñene ci noonu sama caamiñ bi ne ma kii sama xarit la nit ku baax la te diw kii mën na laa yor man gis naa ne jàmbaar nga sa sëy bee wax dëgg yàlla sëy nga ci loo mën sa jëkkër jee doy waar te man dama laa yéene jëkkër dugg si nee na daal di may baab daal di may convaincre nee bi ma convaincre nag xawoon naa sax rasu ndeysaan ndax fi ma jaara metti mais ba mu yàgg ma xam ne taaru jigéen sëy te boo tollee ci sëy dangaa war a sëy nee na ma daal di accepter ne d'accord amul problème nee na maag waa ji ñu échanger ay numéro nee bi ñu échanger ay numéro ñu commencé di waxtaan nee na ma soxna faatu ma ne waa ji man xam nga lu ma lay yëgal man kilifa laa am naa ñetti doom ak ka ma doon sëyal te ka ma doon sëyal sama doomu bàjjan la xëy na yàllaa weddi man nag ay caaxaan taxumaa jóg su fekkee ne sëy moo la tax a jóg nga ñëw ñu may ma la bu fekkee ne nag ay affaire fo moo la tax a jóg c'est vrai sama xaritu càmmiñ nga de mais nañ arrêté fii relation bi ma continuer jaay sama jaay jàmm ne ñooyu ndeysaan ma ne ko ah dëggantaan jaay nit moom day am fulla fullaay jaay daqaar lu ko mooy mu lamb nee na waa ji ne ko d'accord amul benn problème damay ñëw takk la mu jeex nee bi ñu tolloo ci waxtaanee waxtaanu sëy bi nee na waa ji ne ko su ma la takkee nag da ngay sëy si nee na mu ne waa ji man du sëyi mënuma sëyi sama njaay mii dama koy continuer kon mënuma sëyi nee na waa ji ni ko bët du yenu waaye xam na lu bopp àttan man mënuma laa takk nga toog fii sama aawa toog fee bu ëllëgee sama aawa day foog na lépp lu ma liggéey yow laa ko jox beneen yoon bi aussi affaire bi day metti ci man ndax ñi may liggéeya ndool mun naa dem bay tardeel seeni liggéey su ma sañoon daal nga sëy si nee na moom it mu ne ko sëy siwu ma nee ci noonu nag moo waa ji ñu ciy xëccoo nee na moom mu daal di woo benn grande sœur am pour grande sœur bi conseiller ko nee grande sœur bi ni ko diw bul sëyi yow waa ji xamoo ko à ce diw moo la ko présenter rek daan ku baax la xaritam la fii la xari jaar fii la nag yi bëtte su ma sañoon nag mun nga cee dugg sax waaye bul sëyi toogal ci kër gi ba gën koo miin ba gën a xam jikkoom ba xam ay mbokkam lu ñu capable lu ñu capableul su boobaa bu la neexee nga dem sëyi ndeysaan nee na grande sœur bi daal di koy conseiller loolu nee na à waa ji dem ba moom it ne ko garaawul comme bëggoo sëy toogal man dinaa la takk nga bañ a sëyi pour l'instant nee na ñu daal di d'accord ci loolu nee na ma soxna Faatu ñu daal di takk sëy bi ndeysaan nee bi ñu takkee sëy bi nag ba pare neena ndekete waa ji man xaw ma woon ne waa ji dafa ragal jabaram ma ne ko bëri na ci de daa dañuy takk ñaane la pare fekk ñemewuñu seen aawo yi ndeysaan nee na su ñëwee fanaan ci man benn guddi bu xëyee dem benn yoon ci semaine bi lay ñëw fanaan ci man nee na ma ne ko diw mu ne waa ma ne ko man duma takkoo de dama laa wax sëyeeguma pour les ça ne veut pas dire que danga may def takkoo te yow sax nag xanaa takkoo sax weekend lay jël waaye def may ma benn fan ci semaine bi benn jour nee na waa ji di xëccoog moom nee na mu woo càmmiñam bi ko présenté waa ji daal ni ko diw de li mu bëgg man mënuma ko na respecté ay jox ma deux jours jox kee deux jours wala daal mu xool nu muy organiser ci semaine bi comme ñaari dëkk yu sorewul la mais di ma jox ay benn fan di ma def takkoo loolu moom xalaatuma ko ndeysaan nee na càmmiñ bi daal di woo xarit bi daal di koy expliquer comme li femme bi wax nee na xarit bi daal ne waa baax na man dama yaakaaroon ne rek garaawul comme sëyiwul mais comme loolu la amul problème léegi nee na jëkkër ji ne càmmiñ bi léegi na jóge seen dëkk mu ñëw fii dal ci sa kër gi am fi ay fan man ak moom ñu waxtaan nee na ma soxna Faatu sama jëkkër bi woo ma téléphone ni ma comme léegi dangaa bëgg ñu waxtaan ci ay bi man fan yi aw ma jot mënumaa ñëw seen dëkk léegi da ngay jël oto nga ñëw ci sa dëkk càmmiñ bi mooy luuma fa mu doon jaayi jee ci luuma bi nee na jëkkër ji ne ko ñëwal foofu soo ñëwee nga dal ci sa kër càmmiñ bi man ma fekk la fa bu ko defee ñu am fa ñaar ba ñetti fan ñu toog waxtaanee ay gi ba mu leer bu ko defee jàmm ne ñooyu nee na mu daal di d'accord ak jëkkër ji daal di tàggu yaayam ne ko maa ngi dem bu ma demee maag sama jëkkër dafa am lu ñuy waxtaanee nee na yaay ji ne ko demal nee na mu jàpp benn bis daal di dem nee bi mu demee jëkkër ji ñëw nee ndeysaan ambiance bi neex moom ak jëkkër ji ak ñaari jabaru càmmiñ yi nee na affaire bi neex daal ndeysaan nee na moom sax d'habitude bu ñëwaan ci néegu aawa càmmiñ bi lay nekk fa lay féete nee na ci noonu nag jëkkër ji toogal moom ba mu yàgg ñuy waxtaan waxtaan bi neex rek jëkkër ji daan ne ko léegi xam nga nu ñuy def dangay bàyyi ma dem ma wax sama aawo damay tukki nee na ma te soxna Faatu boobu mooy sama deuxième ñëw diggante bi ma takkee sama première ñëw bi ndekete bi mu ñëwee féeteeg man dafa naxoon aaw bi ne ko dafay tukki man boobu xaw ma ci dara mais deuxième ñëw bi nga xamante ne dañoo war a waxtaanee ay gi pour mu leer nag ci la ma avoué ne ma comme ñëw nga te nee na boobu ñu ngi waxtaan ambiance bi neex moom ak sama caamin bi ak ñaari jabaram ak man nee na ñuy waxtaan kaf fooree bi nee na ci la jógee rek daan ne ma léegi xam nga nu ñuy def bàyyil ma dem kër ga ma wax sama aaw bi damay tukki bu ko defee ma ñëw féetewoo yow fii ba nga ñibbi nee na mu ne ko eh nga lu ma lay yëgal man duma sa gel ba nga may nëbb sa aawo ay naan ko da tukki dama bëgg nga xamal ne ko maa fi nekk fan yi suwaat nga fan yi ma fi nekk nga ay aylooñu mënoo ko man doo ma nëbb de mel ni kuy nëbb sa gel te loolu tamit dëgg la booy seet ndeysaan nee na waa ji ne ko ah noonu nga ko gisee mu ne ko noonu laa ko gisee nee na ma waaye soxna faatu ay waaye ndekete yoo su ma su ma xamoon ma bàyyi mu sedd ndeysaan ma ne ko ah xam nga rek àddina bi booy def dara des fois doo xam sax conséquences yum la mën a jural ndeysaan nee na waa ji ne ma comme loolu nga gis garaawul bàyyil ma dem ne ko fan yii yaa fi ne na la may ñaari fan yii ma féete woog yow après da ngay ñibbiwaat seen dëkk nee na ma soxna faatu ndekete yoo kenn du ko def ma ne ko ndeysaan cëy yàlla cëy hmm, yàlla baax na ndeysaan nee na mu dem wax jabar ji ni ko dama takk ñaareel dafa ñëw mi ngi kër diw fa la nekk léegi dama fay dem nekk ak moom nee na rekk jabar ji ne waaw boole patt ak organiser ndeysaan nee na ma soxna faatu ndekete yoo ndekete yoo ma ne ko oo oh, soxna si looy wax ni nee na ndekete jabar ji bi ko waa ji waxee takk na ma man maa ngi ci kër diw nee na sama caamiñ boobu appartement la jëloon ne ndekete jabar ji réagirul de mais ndekete day réagir ci beneen manière bu gën a bon ndeysaan nee na man daal soxna faatu awma ci lu dul la lendemain ndeysaan nee na ñu añ ba pare teg suñu ataaya di waxtaan nee na ma jékki-jékki ma gis sama jëkkër ji téléphone am sone nee na ñaari téléphone la yoroon digital ak téléphone touche ñu bi téléphone bi touche bi sonné ñu jëkkër ji décroché bi mu décroché rek daal di génn nee na soxna Fatou ndekete sama jëkkër ji ba mu génnee dafa génn rek police ne ko nu jàpp tët tët tët tët nee na ma soxna faatu des na de ma ne ko soxna si lu des mu ne ma ndekete sama jëkkër brigade de recherche bi région bi ma dëkk ndekete mi ngi koy wër ay weeri weeri weeri weer mais le pourquoi mu dem wax sama aawo bi man ñaareel bi maa ngi fi rek jour boobu brigade de recherche bi ko doon wër trouvé ko nee na parce que <laughs> xel du njëriñ lu dul xalaat ma ne ko a ah, bien sûr manière boobu la réagiré nee na waaye loolu yemu ci de beneen surprise bi ma amaat soxna Faatu ma ne ko soxna si ban surprise encore ati mu ne ma ndeka biñ ko bi mu génnee ñu jàpp ko dañoo jékki-jékki man xam nga du ma xam ne jàpp nañ ko ndax maa ngi toog si kër gi en tout cas wuyu na génn ma ne ko waaw mu ne ma ma jékki-jékki benn oto ñëw oto bi gaare mais oto bi ñi ci wàccee dañoo takk ciment ba weex tàll maanaam boo leen gisee rek danga naan ay maçon lañu nee na sama ñaareelu càmmiñ bi daan ne waa ñii moom ku ñuy seet nee na comme càmmiñam bi affaireu sëriñ la doon def da doon gisaane nee na mu ne ñaareelu càmmiñam bi ah xanaa sa jëkkër ndax yow sa jëkkër moo nekk ci dëkk bi naan sëriñ la di ko tooñ noonu nee na rek gaa yi wàcc jubal si ci kër gi nee na moom nag ci diggante bi mu ngi ree naan ne ko sëy sa jëkkër ji seetkat la de moo tax façon nit bu ne lay am ñii de ay maçon lañu xam naa dañoo liggéey ba pare rek ne nañ fi jaar mu seetal leen bala ñoo dem nee na ma soxna Faatu ndekete yoo ndekete yoo gaa yi daal bi ñu duggee ak seen taqaayu ciment bi ñu ñëwee rek dañ ne ñaareelu diw bi man lañu laaj man ne ana ñaareelu diw ndeysaan nee na sama ñaareelu càmmiñ bi woo ma ne ma diw wuyul yow ñii yow la ñuy seet de seetuñu sama jëkkër nee ma génn ñooñu ak seen takkaayu ciment ñooñu daan ne ko c'est la police nee na ma ne ko police yi lan ma ne ko boobaa nga def ko lan lis ndeysaan nee na mu ne waaw police man lan laa def police ne ko ana sa néeg nee mu ne leen man awma fi néeg de man gan laa fi de nee na police yi ne ko déedéet yow sa jëkkër moo la jëlal appartement bi won ñu sa néeg soo bëggee jàmm nee mu ne leen man aw fi nekk sëñ bi man gan laa bien vrai que nag sama jëkkër moo fi indi mais gan laa appartement bi moomuma ko sama càmmiñ bi moo ko moom nee na yi puus ko dugg ci néegu ñaareel parce que ci buntu néegu ñaareel bi la génnee nee bi police yi duggee jubal ci matelas ba mu falaloon nee na police yi yëkkati matelas bi gisuñu dara nee na moom mi ngi indaale woon valise nee na police yi sotti yére yi wër wër wër gisuñu dara nee na ci noonu nag soxna faatu loo xamul xamoo ko nee na may lox di lox nee na benn police bi xool ma rek xam ne sant la rek nee na bi ne ma soxna si dalal dégg nga dalal affaire bi du dara sa jëkkër day jaay yàmbaa looloo tax ñu arrêté ko mu ne ma oo oh. soxna Faatu jour bi ñuy arrêté sama jëkkër jour boobu la ñu am 21 jour de mariage waa ji musuma xalaat ne day trafiqué musuma ko xalaat ndeysaan nee na soxna Faatu ma ne ko yàmbaa yi lan nee mu ne ma ah sa jëkkër day jaay yàmbaa de mais nag jàpp nañ ko ba pare mi ngi ci oto bi dañ doon ñëw rek di xool comme nag defoo si dara yow sa yoon nekku ci ndeysaan nee ma soxna Faatu ma jooy fa jooy yi metti imagineel 21 jour de mariage te li ma ci jaaxal ndekete moom brigade de recherche yàgg na ko wër ndaw si loolu la ma wax nee na mais musul musuñu ko jàpp ndax waa ji dafa amoon méthode boo xam ne doonuñu ko woon gaaw a jàpp ndax nee na waa ji velo la yoroon ndekete nee na après le découvrir yépp velo nee na vélo bi waa ji yor waa ji ñiy trafige ci beneen réewu Afrique lañuy jóge nee bu ñu jógee ci réewu Afrique boobu jëkkër ji mooy dem kar leen su leen karee jël bagaas yi def ko ci velo bi pédale velo bi dugal ko biir senegal nee na bu ko defee yow doo xalaat ne velo bi yeb na yàmbaa doo ko xalaat mu ne ndekete jëkkër ji lool la noonu la doon def moo taxoon gaa yi rëbboon ko rëbb rëbb rëbb ba sonn jàppuñu ko mais nii na li ko ci jaaxal jour bi jëkkër ji annoncé aawo bi ni ko sama ñaareel bi ñëw na rek nee na le lendemain bi ci bëccëg gi la ñu jàpp jëkkër ji te nee na ñi jàpp jëkkër ji dañoo déguisé wu en mason ndekete ay policier la ñu ndeysaan ne na ma soxna Faatu ndekete sama jëkkër bi policier yi yàgg nañ koo rëbbu nee na ndekete doon nañu déguisé wu dof ñëw toog ci buntu këram doon nañu dégiser wu n'importe comment daal mais munuñu ko woon a jàpp mais nee na jour boobu daal bi mu annoncé awo bi ne ko ñëw naa jour boobu lañ ko lañ ko jàpp moom nee na soxna Fatou te li ma ci jaaxal nee na ma découvrir bi yemul foofu de ma ne ko loo découvriraat ndeysaan mu ne man ndekete yoo sama càmmiñ bi appartement bi mu jëlal ñaari jabaram man affaire bi jaaxaloon na ma soxna Fatou ndax sama càmmiñ bi loxoom jotewul noonu day gisaane mais gisaane bi demeewul noonu le fait que mu jëloon appartement di ko fay jaaxaloon na ma mais nee na soxna faatu ndekkete yoo sama jëkkër bi moo ko jëlal apartement bi di ko ko fayal moom ak ñaari jeegam pour mën a jël bagage yi di ko suul ci kër gi ci côté yi nga xam ne am na suuf di ko fa suul nee na looloo taxoon waa ji kenn mënu ko woon a jàpp da koo jaral mu fayal moroomu góoram appartement di suul affaire yi foofu nee na ndekete bu client ñëwee day ñëw foofu nuyoo rek dem sulli dem nee na parfois aussi bu foofu jeexee mu ne client bi demal sama aawo jox la nee na ma soxna Faatu lan moo tax bi police di laajte laajte wu ñu aawo bi nga xam ne da koy jaayle man mi nga xam ne xaw ma woon ne sax kii day jaay yàmba ndax 21 jours de mariage la ñu def nee na man la ñu laajte sama tur nee kon xam nga ne nag soxna Faatu yaa yaa quelque chose ndeysaan ma ne ko maanaam ci li nga bëgg a wax daal sa génnewoo ci sa aawo bi moom moo la dénoncé ma ne ko ah noon lay war a mën a demee moom fiir na mais fiir bi da koo profité ci moment boobu ndeysaan ma ne ko cëy yàlla ne na ma soxna faatu ñu jël ko yóbbu ma jooya jooy ba sonn nee na waa ji nag dafa defane woon suñ ko arrêté ba pare ma découvrir ne ndekete jaaykatu yàmbaa la na pour moom dama koy ñaan baat waaye soxna Faatu ñaanu ma ko baat ndeysaan ma ne ko ah mënoo ko ndeysaan yàlla baax na ci yàlla nee na ñaanu ko baat nee na xam nga nu ma def dama ñibbi suñu dëkk ndeysaan bi ma ñibbee ma nëbbu ko sama yaay nee na parce que moom fi ko jàppee sama dëkk lañ koy indi pour tëj ko fa ndax fa la prison ba nekk nee na ma ñibbisi ma nëbbu ko sama yaay nee na ma ko nëbbee sama yaay nag may va et vient nee na le lendemain bi ñu ko njëkkee garde à vue damaa dem jënd cinq kilo mburu ak ay kafe nee na ma koy yóbbul nee na lu tax ma jënd 5 kilo mburu damaa xam ne foofu giri ba en général di nga fa fekk ñeneen pour ñooñu mun a lekkaale ci mburu mi ak kafe gi ndeysaan nee ma yóbbu nee bi ma yóbbee va et vient bi bëri nag ma xam ne sama yaay tamit doful mi ngi may gis may va et vient di va et vient nee na ma daal di à la wax sama yaay ne ko diw dañ koo arrêté ndeysaan mais nee na soxna Faatu bi ma waxee sama yaay diw dañ koo arrêté waxuma ko réellement lu tax ñu arrêté ko de nee na sama yaay daf ne ma waa yow diw lan moo tax ñu arrêté ko nee na ma ne ko diw de da doon jaay fraude ñu ne yaay ji ne ko ah kon diw da doon fraude ndeysaan looloo tax ñu jàpp ko nee na mu wax loolu yaay ji ndeysaan nee na juste rek pour suturaal boppam ndeysaan ñu ne ci noonu nag waa ji nekk fa weekend la tombeloon ñu ne ñu ne fa ba lundi après ñu jàllale leen quelque jours ñu àtte leen nee na daal leen di daggal deux ans de prison ndeysaan nee na bi ñu daggalee jëkkër ji deux ans de prison nag nee na mu jooy nee na moom waxul sax sëy bi mais dafa yërëm jëkkër ji ndeysaan bien vrai que moom 21 jours la sëy ci sëy bi ñu arrêté jëkkër ji te musul xam ne jëkkër ji day jaay nee na loolu metteetu ko de mais moom waa la yërëm ndeysaan niñ ko monotee yóbbu ak niñ ko nar a tëjee deux ans ferme nee na loolu affaire bi metti ko mu yërëm waa ji ndeysaan mu ne ma soxna Faatu koy toppatoo di dem di ko yóbbul di ko yóbbul ndax nee na dafa dafa tase woon ak jamonoy corona nga xam ne visite amul kenn du dem kenn du dugg nee ci noonu benn jour matoog toog rek benn policier woo ma benn pénitencier woo ko ni ko euh, sa jëkkër bi nee na nga yónnee ko xaalis ndax yoratul dara ndaxte nee na jamono boobu mënoo dem yóbbu lekk ndax jamonoy corona bala bi ñu confiné nit ñi nee na xaalis rek nga mën a yónnee nit ki nee na ci noonu nag fan yooyu sax fekk na faatu sama njaay mi xaw a rës ndax ni ma amee woon problème ndeysaan nee na ma daal di yëkkati 5000 francs ma wéef ko ko ndeysaan daal di koy jox pénitencier bi pour mu yóbbul ko nee na ma li ma ci jaaxal waa ji mook aawoom li ñu noos ci jaayum yàmbaa bi man noosu ma ko ci waaye waa ba mu nekkee prison man la doon woo pour ma koy yónnee chaque semaine ñaari yoon 5000 ça veut dire que daal chaque semaine dinaa ko dugalal 10 000 francs parce que boobu yóbbu benn yóbbu añ ak reer amul woon ndax dañoo confiné woon gars yi ma ne ko ndeysaan billaay des fois yàlla teg la coono yoo xam ni mais nag sant yàlla ndeysaan nee na soxna Faatu ma dëkkee noonu dëkkee noonu affaire yi di tar nee na benn jour ma romb benn xale bu jigéen nee na xale bu jigéen bi damay def damay faral saa yu ma ko yom rombee rek day toog ak ay homme de tenue nee na comme bëgg naa jàppale sama jëkkër mu génn nee na ma ñëw approché xale bu jigéen bi ne ko yow de dama lay gis toujours ngay toog ak ay am détenu xanaa daa am koo ci xam wala lii nee na xarit bi ne ko waaw sama tante pénitentiaire la mi ngi ca expliqué ko fa mu nekk ci prison ba jëkkër ji nekk ndeysaan nee ci noonu nag mu daan ne xale bu jigéen bi doo ma boole ak sa tante nee xale bu jigéen bi ne ah sama tante du nangu yooy de waaye daal mun naa laa jox numéro nee mu jël numéro tante ji jox ko xaalis ne ko pour nga joxal ma ko sama jëkkër ndeysaan nee na far yàlla nattu ko ndekete jour bi mu joxee tàntay xale bu jigéen bi xaalis pour mu jox ko jëkkër ji nee na nag boo gisee mënoon na ko ko wéef mais boo gisee cette fois ci mu jox ko pénitentiaire bi maanaam daf koo bëggoon a jage pour ndaw si dimbali ko jëkkër ji ba ñu tëdd deux ans ndeysaan mu ne bi mu ko joxee xaalis bi ndekete jour boobu moo nekkoon jouru wàcc ndaw si te nee na ndekete pénitentiaire pénitentiaire yi sax laay wax ñoom ñëpp ñu wàccee dañuy dañuy toog une semaine doog a doog a liggéeywaat bu ñu demee liggéey waat aussi une semaine lañu fay defaat dooga wàccaat nee na moom nag xamu ci dara ndekete jour boobu la pénitancier bi waroon a wàcc nee pénitancier pénitencier bi wàcc dem këram am fa une semaine nee na ci diggante bi jëkkër ji woowaat ko ne ko yow ba tey duggalaloo ma xaalis bi ndeysaan nee na mu ne ko jox naa la xaalis bi nee na mu ne ko ñëwul de kon nee na ci la woowaatee xale bu jigéen bi laaj ko ne ko sa tante laa yóbbante woon nee na xale bu jigéen bi doog koo expliqué ne ko tante ji jour bi nga koy jox jour boobu la wàcc te dina toogaat une semaine doog a liggéeyiwaat nee na mu ne garaawul nee na mu daal di jëlaat beneen xaalis wéef ko jëkkër ji nee na ma soxna faat ndaw si comme dama bëggoon a xamanteeg moom nee na teguma ko pression woowuma ko di ko laaj ba benn jour ndeysaan nee na ndaw si bi sept jours am yi jeexee ndaw si liggéeyuwaat ndaw si woo ko ay soxna si baal ma àq de yow sa xaalisu jëkkër bi téye naa ko lu yàgg parce que bi nga ma koy jox jour boobu laa waaj te jour boobu dama laa fàtte wax ne jour boobu laa waaj nee na mu ne ko amul solo nee na ndaw si ñuy tooñante ci ay sant ak ay kalak ay sama jëkkër nii la sant ndax nee na jëkkëram bi ñu arrêté woon sax mook jëkkëru ndaw si ñoo bokk sant ndeysaan nee na ci noonu nag comme dañ doon tere lekk dugg fa jamonoy coronavirus la woon nee na xamante bi mu xamanteeg pénitentiaire bi daal di koy jural njëriñ nee na ma soxna Faatu pénitentiaire bi su ñëwee ba war a dellu damay profitoo dem marché jëndal ko kafe jëndal ko meew jëndal ko jëndal ko nee na nduggal ko valeur vingt cinq mille jëndal koy tubay yu set wecc pour bu demee mu mën a changer lu mu sol ñu ne bu ko defee ma jox ko pénitentiaire bi ndax pénitentiaire bi su ma ko joxee moom dina ko ko mën a duggalaaleel ñoom kese ñoo fa mën a duggal lekk nee na looloo taxoon ma approché pénitentiaire bi ndeysaan ñu ne pénitentiaire bi di ko duggalal lekk yi foofu chaque semaine rek bu xamee ne pénitentiaire bi wàcc na balaa delluwaat semaine am nee na mu duggal waa ji valeur vingt cinq mille ci ay meew ndax boobu confinement la woon pour waa ji bañ a jaaxle ndeysaan nee na ndax man damaa dem ba yërëm ko donte 21 jours la ñu sëy ñu arrêté ko ma ne ko soxna si mun nga sëy te bëgg nga sëy mais nag yàlla baax na ndeysaan nee na may def moom noonu nee na ba mu yàgg pénitentiaire bi ne ma attends prison bii dafa xat dafa metti te yow soxna si ku baax nga gis naa ne it ku bëgg jàppale sa borom kër nga ndax yow chaque semaine nga ndugg ndugg ndugg ndeysaan billaay dama laa yërëm mooy jigéen ñu nga xam ne bu ñu gisee jigéen bu bu baax ndeysaan dañu lay bëgg a jàppale nee na mu ne ko dinaa ko jàppale ñu yóbbu ko beneen dëkk ndax dëkk boobu prison boobu moo tane taxu ko xat nee na pénitentiaire bi dimbali lijjantil jëkkër ji ba ñu transféré ko ci beneen prison boo xam ne moo gën a yaatu nee bi biñ koy transféré nag nee na ndaw si ne ko bul jaaxle xam naa li ngay xalaat danga naan dootoo am koo jox meew yi nga koy jëndal ak kafe yi nga koy jëndal t'inquiète foofu ma koy transféré am na sama benn xarit bu fa nekk dinaa la booleeg moom soo jëndatee bagages yi nga fexe kooku jot kooku dina ko ko dugalal ndeysaan nee na ma soxna faatu ndaw si ki ma boole laat xanaa kooku sax danga naan moo gën a baax ndeysaan nee na kooku yit baax a baax a baax ba bëgg dee nee na su ma jëndee bagages yi fexe ba mu jot ci kooku yóbbaaleel ko ko buy dellu beneen semaine ndeysaan ma ne ko cëy yàlla bëgg nga sëy de mais billaay yàlla dina la ko fay soxna si ku ñàkk rek njëriñu gis nga début bu difficile boo yàlla lim ci def sutura bëri na l'essentiel mooy li ne li ne fii xol bu rafet rek mooy nit waaye parfois tolof tolof ak nattu ci ay côté yàlla du ñàkk mu teg ko jaam ndeysaan ni muy dalee jigéen aussi lay dalee góor góor des fois du am sansu jabar mais lépp ay nattu la ndeysaan nee na ci noonu soxna faatuma ma dëkkee noonu dëkkee noonu continuer di jaay di ko jàppale nee na ma li ma si gën a metti soxna Faatu ma ne ko soxna si mu ne ma aawoom bi xam nga sama jëkkër deux ans la tëdd prison aawoom bi par juróomi weer la fay dem kon kooku ñaata yoon la fa dem kooku est-ce que dem na fa ñetti yoon kon nee na aaw bi faalewu ko biñ ko arrêté aaw bi dafa nekk ci ay bagaasam nee na mu koy yëg nekk ci leneen ndax nee na aaw bi gërëyee boppam la nee na par juróomi weer lay demee ca prison ba seeti jëkkër ji ma ne ko kon kooku la mu fa dem bu ma tee ñetti yoon ci lay yem nee na diirant li mu tëdd deux ans yëpp maa sonn maay jënd samay par vingt cinq mille di ko jàppale nee na ma waaye soxna Faatu loolu mettiw ma ma dëkkee ak moom noonu dëkkee moom noonu ñaari pénitentiaires yi mun nañ maa seede nee na soxna Faatu ba yàlla dogal mu tëdd deux ans yi deux ans yi mot saan nee na ma soxna Faatu xam nga lu ma waa ji fayee ma ne ko soxna si lu la waa ji fayee mu ne ma xanaa génn continuer na mu commencé woon au début di fanaan ci man benn yoon ci semaine bi dem ca aaw ba def fa une semaine ma ne ko ay waay dëggit ndaat saay te moom ba mu nekkee prison ba yow la woolu pour nga yónnee ko xaalis nga koy yónnee nga dem ba ci biir di ko ko defal lekk di ko ko yónnee mu génn di la may benn fan di dem ca kaka faalewul di am une semaine waaye jamono ji nag defati lu baax moom jar na ko yow kay newuñu la nga jéng mais boo génnee yamaleel ay defal deux deux wala nga xaaj semaine bi ku nekk comme dëkk ak dëkk la nga xaaj semaine bi soo amee fii 4 jours am fi 4 jours benn jour bi nga xool noo ko def nga def ko yu ba du mën lépp yi dimanche bi yaa ko moom bu la neexee chëtëtëtë man de tey laa waaru nga ne bi ko waa ji defee noonu nag mu xam ne waa ji du gor nee na mu woo xarit mooy càmmiñam bi ko ko may mu ne ko waxal ci diw diw li ma daj ci kasoom bi te vingt 21 jours la ñu sëy ñu tëj ko ma sonn ci lu ne ma dugg ci ndax rek bañ a nekk defeyant nit ñu may la ko mu am problème nga daw donte nag dafa maa nëbb ne jaaykatu yàmbaale woon mu génn bëgg ma di ma jox benn fan di dem fee di fa am une semaine ci koo xam ne faalewu ko woon nee na waa ji di dëgëranteeg moom bopp ndekete la mu waxoon waa ji dafa ragal aawo bi nee na waa ji ne ko loolu laay def nee na mu ci xëccoog waa ji nee na ba mu yàgg daal nee na soxna faatu daal ma dem a dem ba xam ni kii aawo bi da koo noot da koo napp walla boo xëy na day ragal mu dénoncé waat ko comme ni mu ko denoosee mu tëdd deux ans nee na ma sonn ci wax ji nee na ma ko baat ndeysaan mu ne ko cëy mu ñël rek yàlla baax na ndeysaan nee bi ko ñaanee baat mu ne ma duma la ko may duma la ko may te benn fan laa lay jox nee na ma ne ko dégguma dëgg yaa may may baat ci a wala ci bii kon mbokku enteno di kii sëy bi lan la ci dund 21 jours ñu arrêté sa jëkkër mu tëdd deux ans de prison nga koy dundal mu génn ne la benn fanu ay laa lay may kii lan la ndeysaan kii sëy bi coono kese kese la ci duggee ndeysaan nee na yaayam dem na ba à la découvrir ne jëkkër ji jàppee wuñ ko fraude mais yàmbaa la doon jaay nee na parce que xam nga rek nit ñi rumeur yi commencé daw nee na sama yaay ñëw ba ci man ne ma ay diw kon yow sa jëkkër ji yàmbaa la doon jaay nga ma koy nëbb nee ma soxna Fatou nu may def dugg naa ci sëy bi 21 jours ñu arrêté sama jëkkër am na yoo xam ne xam naa ne du neex sama yaay ma suturaale ko noonu nee na waaye sama yaay mujj na koo yëg ñu ne ci noonu nag ay gi nag mu ne benn fan la may jox ñu jàppante si ma woo ay mbokkam mbokkam mi xas ko ne ko respectel ay gi mu dëgër bopp nee na ma ñaan ko baat nee na mu ne duma may baat ñu ne ci laa demee ci benn imaam ma demee ci benn imaam ma expliqué ko ni situation bi demee ak li ma leen nettali fii yëpp ci nettali bi ñu ne imaam bi ne ko soxna si wóor na ne ne yow xamoo woon ne waa ji day jaay yàmbaa mu ne ko billaahi xaw ma woon ne waa day jaay te sama càmmiñ bi ku ma waxoon dina ma toroxalee nii mu ne moom waxatul jëkkër ji mais càmmiñ bi la mere xamul woon ne càmmiñ ji yéene na ko lu bonee nii waaye nag yàlla baax na nee na mu wax loolu imaam bi imaam bi ne ko comme xamoo ko woon jour bañ ko arrêté ca yàmbaa jour boobu la sëy bi tas ndax dalaa fen ñaareel bi mooy sëyu ñaari mag ku ci njëkk a décidé ne bëggatul sëy bi sëy boobu lis la am tas na ko nee na ma soxna Faatu kon sëy bi tas na ndax loolu la ma imaam bi wax ma ne ko dëgg la nee na ci noonu nag ma dem defar sama ay këyit tëye nee na ma ñaan ko baat sëy bi daal di tas ndeysaan lii nekk deuxième part troisième partie astafurla wu ndaw sii nga xam ne première sëyam bi nettali naa leen ko gis ngeen li mu daj ci première sëyam bi deuxième partie bi aussi nekk ba léegi ci première sëyam bi troisième partie bi ñu dugg ci deuxième sëyam bi sëy bii tas na nee na fii nag question bi muy posé ci deux ci troisième partie bi deuxième sëy bi sëy bi tas lan moo tax aawo bi sax day jaayle jëkkër ji bi ñuy dénoncé dénoncé wuñu aaw bi moom mi am 21 jours ci sëy bi ñu dénoncé ko ma ne ko question boobu man duma accuser lu ma fekkewul waaye question bi sa xel li mu ñaaw man loolu la sama xel ñaaw mbokk internet yi nag xaw ma lu seen xel ñaaw xaw ma ko le fait que premier jour bi mu yégee ne takk nañ la la ñuy arrêté sa jëkkër te moom sax da ko doon jaay kon soxna si ah wax dëgg yàlla seytaane waxul dëgg waaye yàq nay xalaat man daal sama xel ñaaw na ko lii nag mooy trois pardon troisième partie ndaw si deuxième sëyam bi après ñu indi leen quatrième partie bi troisième troisième sëyam encore ndeysaan ndaw si daal ay déception rek lay dund mais nag yàlla baax na soxna si bul ragal de lépp dina baax incha allah ay ca ñu joxaat leen dig daje ci quatrième partie bi quatrième parti bi nag nekk troisième sëyam bi gis ngeen première sëy bi li ma leen ci wax lii nekk deuxième sëy bi moom tas na après ñu duggaat ak yéen ci troisième sëyam bi aussi lim si dundaat muy lu metti ngeen xam ne ndekete am na ñu am nattu sëy ndeysaan ay ca mbokku internet di maa ngi leen di jaajëfal bu baax baax di nuyu suñu DG Sey di ko jaajëfal bu baax a baax kana satulaa koréen moo nekkoon ci caméra bi ñu ngi koy ziyaara bu baax a baax a baax ay ca kanasatu satu Mariama tey suppu kànja la toog de doo ñëw ñu dem añi ñëwal ñu dem joganiku ji kana satu li ngay bëgg suppu kànja kanalaa suppu kànja yéen ñëwal ñu dem ci madame Sey Mariama Mariama Diallo tey suppu kànja la def de comme yow suppu kànja da lay feebar ay ca mi ngi noonu maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen joxaat dig daje ci yeneen i nettali d'ici la portez-vous bien et bonne suite de programme sur Thiès Info ñu daal di koy terminer ak suñu kaasu café